<laughs> yow doo dem doo ñu lay téye. dégg ndax da nga doon def wax dëgg yàlla neex na nit ñi danañ la téye oto la bés boo xam ne daf fi jaar. <laughs> loolu indi sama samedi matin. <laughs> Mm-hmm. ma commencé dafa animé par samedi matin. Mm-hmm. boobu Aliou Ndiaye moo nekkoon directeur programme ba. Mm-hmm. ñu daal di may dugal foofu nag mooy commencé fa samedi matin yi. Euh, muy dem di dem di dem bu Boubacar jëlee congé rek ma daal di ñëw ku jël congé rek ñu ne ma kaay remplacer ko si daal bu jëlee congé ma ñëw ngoon si Boubacar bu jëlee mais du tee man maa ngi sama samedi matin ba yàlla dogal ne foofu laa tàmbalee ba après xam nga ne bu ma fa jógee tamit RFM laa ñëw waaw mais mais ci biir nekk foofu bokk nga ci ñi imposé du waaw Mm-hmm. Sénégal bu ñuy wax duo tey yow bokk nga ci ñi ko imposé. waaw laataa mati yawee njéeme. waaw naka la Kouthia def ba xam ne liggéey bi. waaw na njéeme <laughs> waaw njéeme Ndiaye. njéeme Ndiaye man dama ne dañu ma ngay sëy ca Kaolack. ana ah, ma ngay sëy ca dëkk dëkk dëkk ñanga ba ca Kaolack. <laughs> Pape Cheikh dama nekk dama dama ñëw Walfadjri <laughs> parce que Kouthia bi ma wooyee ma ñëw fa. Bécaye tollu France parce que boobu Bécaye mu ngi wal fajiri mhm. woote di laaj ndax njéeme ba tey moo dellu si ci <laughs> parce que tellement que man njéeme laa gëj a gis waaw dafa yàgg yàlla def na ni mosuma ko déglu mais ndekete dañoo nuroo woon baat ma ah. mais Kouthia bëgg naa xam naka la def ba imposer li nga xam ne moom moo di duo boobu la waaw bu ngeen ma dul euh, fekkee waxtaan bi du ngeen ma ci mën a dégg rek mooy man réer naa ñun ñoo ngi lay dégg waaw xaw ma njéeme xaw ma ñu waaw juddoo sax rek xam ne réer naa man mooy ni juddoo waaw jamono yooyu la ca ba daan def musóor yi wallaay musóor yi tuuti ak ñoom sukaa mbaay yu ndaw yu nii rek ñoom sukaa yàgg na yàgg yàgg na boobu boobu boobu dama doon wan ne seen Lamine mm-hmm. animation balaa muy neex mu nekk diggante góor ak jigéen. Mm-hmm. ñu boole ñu ne ma léegi man leen bëgg naa daal am jigéen boo xam ne daf may tooñ ma koy tooñ ñuy ñuy tooñante. Mm-hmm. mu mel nag euh, Kumba ak Maram xaw ma nu mu tuddati. Maram ak Birane Maram ak Birane ñu commencé koog njéeme affaire bi neex réussir ba yàlla def njéeme am jëkkër. Mm-hmm. ba njéeme am jëkkër nag mu gaaw nag euh, jëkkër ja gaaw mu jël ci ëmb. <laughs> lii yóbbu njéeme. waaw kay loolu léegi nag ndeysaan c'est rajo ñu ñu wàcc benn jour c'est <laughs> fekk fekk mati euh. taxaw ci buntu rajo bi <laughs> yor benn jumbo bu ñu naan waaw <laughs> di ko jaay mu ñëw taxaw ne ma naka def ma ne ko saa mu ne yaay ku mu ne ko am ah, lu neexee fii mooy Walfadjri ma ne ko ma ne ko yoo lay def nii damay jaay kii konoor ma ko ah konoor waaw fee kër yaay Youssou Ndour ma ne ko fee muy jaar nga fa da boobu déedéet da jaay dama jaay mais waale fi mu toll nii waaw déposé verbal waaw mu def dépôt verbal la doon def dépôt verbal ma ne ko yow de yow def yow xanaa da nga bëgg def affaire rajo dana intéressé bu ma rajo man intéressé ma kay ma ko ma ne ko am na ko fi nekkoon daal ëmb ko fi jëlee amagoo jëkkër mu ne ma déedéet ma ne ko kon mun ngaa mu ne ma déedéet ma kon mun ngaa xëy ñëw te ëmb ko fa jëlee waaw boobu boobu ndeysaan dem si yàlla gi mu nekkoon directeur programme Edouard Edouard ndeysaan ma daal di ko fa indi nag maa ngi mati ñu commencé nag si Lamine dama dégg dafay stage de du ko mun a ñamal ñu commencé mais mais mais Pape Cheikh kii laa bëgg <laughs> dama koy dog foofu. bi loolu amee. may jóge géej waay. Mm. Eh, eh, ma de eh, Mati ah. kii de noppi. <laughs> maa bëgg kii. mu jàpp ci loolu nag. Uh-huh. xam nga ne jamono jooju deux mille cinq cent lañ tombeel. Mm. xam nga koo xam ne que ni maanaam yorul 100 francs yu mu passé mhm. xam nga ne boo ko may 2500 mille rey nga ko gis nga ci li ma lay dogee mooy mooy euh, euh, naka laa koy naka li ma li ma sama benn kilifa daan wax le soleil brille pour tout le monde li tax ma fekkee ko jamono yooyu fekk na ñun ñuy animé waaye yow da nga bokkoon ci suñu auditrice ñu lay wooyee Mati Ekariko nga bëgg rajo lool fépp la doon woote temps yi Pape si xam nga yëpp xam nga la moo xewoon temps yi <laughs> euh. Mati point pap Mati voilà <laughs> mati point. point Kouthia. waaw Kouthia point euh, Karim <laughs> point Paco. point Kolos point mati point man point ba ci boppam moo ma jaaxaloon mel na mbir mi phrase la. léegi mm. yàlla def na moom tamit mu daal di ñëw réussir affaire bi wallaahi ñëpp naan ma njéeme njéeme njéeme njéeme maag moom mu mel ne tul ak maram mm-hmm. commencement bi nag xamoon na am xat-xat tuuti ñu bëri d'accord ñëwoon ndeysaan ñu bëri mën na ko muñal rek am na mm-hmm. benn jour boo xam ne dañ ko fekk ci kaw toroxal ko wallaahi ni commencement noonu la na ko ee eh, mm-hmm. sa baat bi c'est pas baatu rajo dëgg la de ma ne waa ji naa ma ne ah, ko début moo metti kii de mu toog waaw waaye mu jàpp ma ne ko boo toogee ma toog bu toogee ma toog ñu ne ah ñu dem wax ko Sidi Lamine. Mhm. Sidi <laughs> da nga koy wax rek ni mu ni mu koy doxalee su ko defee dégg mu tegu ci yoon nga <laughs> bañ a waat ci yoon ndax xam nga dafa am ko ma jox dégg nga mu koy déglu. yàlla def nag ma daal di koy tàggat renouveler moralam mu daal di ñëw nag assuré ndeysaan mu assuré nag mati ba affaire bi nag nekk lu imposé ah ba Sidi Lamine dem nag ba gëm na lii mhm. mënutu ci dara mhm. dem ba mati mënul ñàkk ci Kouthia kay mënutoon sax damay absenté pour Kouthia doo ñëw ma ne ko ah man si ñëw ma tey de dama mm-hmm. jàppante gars yi lan nga def ma a ko mu ne ma non du ma animé ko di nga animé loolu foog ñu wax ci jàppanteem yu bëri yi waaw ñu wax rek foo dem jàppante <laughs> waaw ay humeuram la yor waaw loolu sujet la waaw gis nga bu ñu añee bay dessert ci la ñuy doog waxtaan nag ci jàppanteem yooyu parce que tey lu lu waay bëgg a xam ci Kouthia rek di ko xam àggalil ñu def noonu mu commencé ma bàyyi ko nag lisaan muy doxal moom kese nag <laughs> pour ma xool nag ndax sans a doxal ndeysaan moom mati nag réussir nag doxal bi moom kese wan man showam mhm. mhm. fa moom tam mu des mu des am ngor mhm. ne ma bu ma demee nga dem Sidi Lamine day am lu ko naqari demal doxal man ma toog. kon dalaa bàyyi nga dem mu des ak Sidi. waaw man ma dem ma jóge fii. dem ma ci baaxul ah. ah dama <laughs> ma may dédicace nag di ah, mhm. fa ci moment boobu daa dee dem mu continuer di ma tudd. Mhm. loolu dafa nekkoon lu jafe. Mhm. waaw vraiment. Euh, nekk na loo xam ne tamit euh, lu ma lu ma marqué la ci moom. ba ma doon def tamit. télé ba ba télé bi ibee mhm. maa ngi ca wal TFM mhm. ca wal fajiri ga ah, mhm. ñu def nag diwo boo xam ne ku caag mati ci télé ba ni ñu doon gis ci rajo ba gis ko ci télé ba waaw bañ ma yàlla dogal tamit foofu sama wërsëg daal dafay jeex ma dem mu daal day nekk ak saa njoogu mu xam moo xam ne kii euh, min na Kouthia mu nekk fa nekk bu rafet nag tamit te du tee chaque jour ma koy woo ne ko Mati te ngaa fekk si ma fii mu ne ma bàyyi rek ma toog sama wërsëg bés bu ñu kii dem foofu moo ma jaarloo ci rajo foofu laa defee télé ba egsi fii ci euh, Futurs Médias télévision Futurs Médias mais bëgg naa nga wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi parce que tey li ñuy maye waaw yow la koy teg ci sa loxo waaw ñoom aussi commentaires yaa ngi fi ñu toll nii euh, plus de cinq mille nit ñu ngi ñuy xool ci li nga xam ni moom moo di Facebook bi bokkul ak nit yi nga xam ne ñu ngi déglu seen rajo fi ñu toll seen xool di neex rawatina mhm. taximaan naa dañu gaare parce nee na li ñuy wax nii ànd ak benn bruit <laughs> waaw jar na gaare waaw ku ci mel ni Mbaye seen chéri Anta Thiaw nee na waaw foofu foofu nga ma laaj ci jaar jaar rajo. Mm-hmm. ak télé. Mm-hmm. foofu laa yem. <laughs> non diggante sa <laughs> diggante. <laughs> li Mati wax dafa li li li Mati wax. Euh, man dama koy dama koy confirmer sa diggante. ak taximaan yi. waaw sa diggante ak auditeurs yi. waaw sa diggante ak sénégalais yi. ci bi nga nekkee rajo ba tey. waaw euh, euh, loolu lan nga ci lan nga ci wax. xam nga la mooy secret rajo. Mm-hmm. rajo da ngay fexe ba bu dee rajo matinal la. da fexe. ba ki nga xam ne dafa dugg ci otam am problème euh, damay dugg ak di waxtaan ak taximaan ma damay dugg ak cokkaas la. Mhm. na la ban heure moo gën a jafe pour dawal nga ne ma premier client maanaam nga wër départ wër ñaari dix minutes vingt minutes gisoo client. Mhm. fu ne nga loqati fa doo fudd ngay bañ ak ku def nii ak ku ne loolu ngay bañ a dégg. léegi nag li ñu tax ñun suñu xol neex mooy bu fekkee dañoo jàpp rajo waa jay animé mhm. daal di ñuy motiver motivation boobu mooy fexe ba rythme bi nga xam ne moom ngay teg moom lu mu am am problème da koy tympaniser. pour na ko fàttali loolu lii mooy nekk sa xel par la force lii laa ci def daal di koy bëggal xaqataay moom de il se pose la question loolu daf ma jaaxaloon si Simon Mélèze Mm-hmm. mu nekkoon tamit animateur bu mag. Mm-hmm. boo xam ne musoo dégg animation buy départ commencé reetaan ma ne waa moom si moom énergie bi moom xanaa day naan ne buy démarré rek day ree loolu am na lu muy def ci doomu aadama bi nga xam ne yow mi nga xam ne reetaanam mun na laa déclenché nga ree mm. ba nga en bonne humeur parce que sa lundi matin bu yàqoo mm. day dem ba àjjuma ay sa lundi day toog ba samedi day toog ba samedi day dëgër bopp nag dag lundi matin <laughs> mu neex bu neexee day dem ba ci àjjuma ci mais bu yàqoo rek day feeñ donc yow dangay ñëw rek fexe ba auditeur bi taximaan beeg ñëpp nga laal leen ñam leen def leen defal leen sagal leen parce que sag la. Mhm. waaw bul xasse bul wax dara sagal leen wax leen li ñu li ñu li ñu bëgg a dégg. Mhm. ci lu neex nga wax leen ko. ba pare nag di leen defal loo xam ne faw ñu am vitamine parce que vitamine la mu ne mel ne vitamine C boo ko naanee ak ndox. Mhm. ni muy def sa yaram. musique vitamine C la war a nekk la matin ci ki nga xam ne mooy chauffeur. mooy déglu boo ko ko joxee ràpp ko ko bu saf sap. mbalaxu fajar deug deug deug deug deug dëgg deug xam nga da fay tel ni nga da fay temporiser ki da temporiser woo kenn mhm. ni nga ko don doxale pap Cheikh mhm. ak ni ko Abadé doxale ci RFM ak mhm. ni nga ko doon doxalee ci ba nga nekkee ci FM mais mom mo changer animation wu euh, euh, euh, deuxième troisième millénaire bi mais Abi fay changer musique marimba indi ko daal di imposé waaw mom mo changer lolou parce que parce que ci pap Cheikh la amé la amé gisee ne mën naa jël ben musique soit ben nomor bu Youssou Ndour teg ko 9 ba 10h. Mhm. Mhm. te du sàppi kenn te du sàppi ndax lam cay wax continue bi. ça de li nga ciy ak nam ci def. Mhm. mooy tax kooku morceau bi par la force. day dugg ci xelu nit ki. ba pare dina la toute la journée waa ji xam ni man ko dégg. la ñuy taxawandee pause parce que xam nga ni xam nga ni King FM ah ah, ah loolu il mu wax ci. <laughs> da ngeen def ay brève. léegi fi ñu nii dañuy def pause xam <laughs> a mooy lan. mooy boole ñaari jabar ci benn kër. <laughs> RFM ak King FM li ngeen bëgg a moo tax <laughs> moo tax moo tax awa baa ngay ciipatu rek. Ah, awa baa ngay ciipatu rek. Eh, waa ñun kon ah. baa ngay xeelu rek. Eh, sama yoon ci ginaar gu tàng man. <laughs> awa baa ngi ciipatu rek ko defee mën a noppalu tuuti. ak équipe am ñu dellu si waat léegi léegi. d'accord jërëjëf aywa yendu bi. na nga Kouthia yàllaa ko dogal Kouthia yàllaa la defar Kouthia kenn mënu ci dara Kouthia ku yóbboo di la ñaanal Kouthia yàgg fi loolu Kouthia groupe Kouthia show Kouthia war ngeen a bég Kouthia war ngeen a am ndam ci